aleykum bismillah dama bëggoon rek ñu présenté maam Cheikh Oumar ne moom dafa participer ci bibliothèque de Bagdad boo ñëwee ci naxu bismillah jaar ak majuróor da ko mokkal Cheikh xale xale yi nekkoon ci jamonoom yëpp ko tari lépp tari ku ne gis na doom ju màcc ci maam Cheikh Oumar di alaji Ibrahima alaji Omar maam Cheikh Tidiane Baye Mal Fatou alaji Setou liraat bi dañ ko mokkal di kafra bi laa ne dafa ne ko mokkal ibnu Baye dañ ko mokkal suñu maam Hadji Ibrahima Niass ak Mouhamed Zeynab Samsa Adib ak Khalifa Niass di leen xam ne académie arabe yi buñ gisee waaye dina wax kii ci ñun la bokk loolu taxoon ma bëgg ñu présenté maam Cheikh Oumar Kassam ci kuréel fanoonu am na sama benn rakk sax dafa amoon doom bu góor fa xarit bi gàddu mooy maam Cheikh Oumar lañ ko tuddee moom mi ni soloo ne Samsudee Mouhamad gis nga ni ñoom ñaar niñ ñuróoye maam Cheikh Oumar laa ne moom lañ koy tuddee ndax dafa bu góor moom mu ne Samsudee Mouhamad gis nga maam Cheikh Oumar mooy Samsudee ci naxwu ci sarfu ci i'raab ci luuxa ci adab ci balaaxa te maam Mama Seynabou dañoo wax ne bayaan ak badiya moom moo ko moom maam Mama Seynabou maam am na ñetti koo xam ne ko seexu yaa moom fiq moom sa yaa moom usul fiq dirasa islami yaa ko moom moom tarbe islami moom daawa islami waaye man am na ñes maam moom alquran kenn ku ci nekk ci dooy maam laa ji radiyallahu anhum ajmaïn ñu doonee ko ci Cheikh Omar Fouti mi nga xam ne moo fi daan xerew maa ngi dalalaat maa ngi juhaal maa ngi buloo kiram yi buur yi doon def Cheikh Omar Fouti moo ko toj kata yëpp Cheikh Omar Fouti moo ko toj jirim nit la ko sa bàyyi la uuti ci yow ndax bu ñëwee jàng duray la jàng daali ya di bu nongo di ataaya mu ne maam Fatima di ko xaaral añ moo tax moom mu bëgg am saw ci Baay Abdourahmane moo tax ñoom ñuy wax alaaji ne ko alaaji defaral ziyaara mooy sa mission beneen bi mooy tabaxal juma mu jigi mu ne ko boo ma ootee ngeen tudd ma ñëw bi faa wax demee Japon mu ne ko alaaji fan yi nga ma wax ne yow da ngay def taw suñu ci Cheikh Tidiane sa doom dem Japon alaaji yow dafa am juma yow tamit da def ziyaara la am tabax juma ak Cheikhou Khalil Cheikh Oumar Dia samsuku lil funoon samsul mutoon te noonu mu mel noonu la xalifa ñes mel ci way alaji Ibrahima ñes mel ko Mouhamed Deen bu mel ko ñoom ñëpp radiyallahu anhu lay fay radiyallahu anhu